الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi tax yàlla subhanahu wa taala noo ngi koy bax di ko kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom rek moo ko jagoo noo ngi musulu ci sunu bon bañ bakkan ak sunu ñaaw di fi jëpp ñu ngi seere ni ku yàlla soxla gindi na ko kooku aji gindee ko la ba faaw te dara mënatu ko dëngaloot waaye ku sunu borom bàyyi ak boppam ba mu sànq kooku ku sànq la ba faaw te dara mënatu koo gindee nu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi comme ñu ne ko baaxoon ci ay biti na ci waxtu wi ñu nekk di waxtaane saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ulaika rijal wa nisa yooye le góor yooye le jigéen nga xam ne lu àddina yàgg-yàgg aw nit dootul meet ni ñoom te wallahi loolu mooy dëkk moo tax mbokk yi léeg-léeg boo déggee nit ñi ñuy tagg ay nit di leen tagg dayoo boo xam yow da ngay tiit da nga naan nii yàlla rek lañ ko war a waxal waxuma sax yonente saxam yàlla lañ ko war a waxal dama wax ne ñooñu dañoo xamul saxaaba yi ridwanullah alayhim damay tagg bu gën a mag lu yàlla def subhanahu wa taala keneen koo xam ne sa moroomu doomu aadama moo la tagg tagg woo muxtamilu lil kadibi wa sadq mën na nekk dëgg mën na nekk gàcc waaye nag lu yàlla def defal ko saxaaba yi te diplôme bi gën a rëy ñu am ko mooy ngërmaande suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi ban xeetu diplôme ban xeetu fii ban xeetu ndam la doomu aadama yóolu ci kaw suuf bu gën a rëy yàlla ni kontaan naa ci yow la chaque ne bu dee boo xam ni aqidaam wér na ngëm yàlla am tax na ci xolam kooku yàlla kontaan ci moom moo ko gën a lu mën a am te mbokk yi loolu moo jar xam mooy yàlla kontaan ci yow subhanahu wa taala lépp loo dégg ci xeetu yàlla ak xeetu yiw boo xam ni jàpp na ni fii kat ku ko def rek am ngërmande suñu borom ndax xam ne saxaaba yi ni mel dëgg la am nay ay jagoo waaye nag am na lu mu sa liggéey danoo yeggoon ci di dal ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala dañuy posé question bi yàlla na wax lim gën a bëgg tey ñu defal mbokk yi ndax ñu toll nañ ko yasalunaka maada yunfiqun na yàlla wax léegi tey lan la gën a bëgg xul alquran yasalunaka an il anfal yasalunaka an il ahillati yasalunaka an il xamri wal mayti wa yasalunaka an il yataama wa yasalunaka gis ngeen xam ngeen yéen ma gën a xam alquran gis ngeen wa yasalunaka yéen bari ah waa nangam nag waa nangam nag waa nangam nag léegi nag tey nag yéen ëllëg maa daal yëngu na yàlla wax lu mu gën a dëgg allahu akbar moo tax ñooñu aw góor lañ woon ak aw jigéen woo xam ne taarix seen ay kuréel dootu bind bi ay nit ñu seetlee ni ñooñu jigéen ñi dootu boor di organiser ci ay niir yu mel ni niir yooyu la ñu jug waaye jamono dootul xamati gaa yu mel ni ulaayika al asxaar alladina radiya allahu anhum wa radu anhu wa dalika liman xasiya rabbah te loolu mbokk yi ki koy mën a am mooy jërëm yàlla ndax da nga naan mënumaa def effort ba mel ni ñoom dëgg la mënoo def ba mel ni ñoom waaye man ngaa def ba kun taxaw àllaaxira nga taxaw loolu mooy lan walladina jaau min baadi ba yàlla yàlla lil fuqaraa al muhaajiriin ba pare xëcc waaram daal walladina tabawwau daar ba mu paree daf ko am ay cër moo tax wallaahi mbokk yi yàlla ku ñu bëgg la ñun ñoo xamul suñu bopp waaye yàlla soo ko nag ku mu bëgg la xoolal gaa yi fekke woon daggante nopp ya ñu fekkante woon dóorante caat ya ñu fekkante woon jamono bi métti ja tey ku la nekk taxaw julli am na jamono wallahi rabbil alamina xaalid bin walid sax doon julli lay laxas am na jamono Muhammad doon julli lay laxas sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa kay la Amar bin Xattaab moo tuub fii bay soppeeku moo tax Abdoulaye bin Mas'ud doon wax ni dañoo nekkoon ñu sorox ñu néew doole waaye dafa mel ni yàlla daf moo kàttanale duubu ko amari bin xattaab kon mbokk yi ñooñee bu fekkoon ne tolloon nañ jamono joo xam ne yëf yi metti woon na ba julli di laaxatu la yëf yi metti woon na ba mëneetu la ko melal suñu borom soo ko rafet bi ñooñu bàq leen nga dégg nee naa ay suñu boppam si ñoom suñu borom ne ubbil naa la bunt wala dina jaaru min baadihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka rahim rahim ma ne ci kuréel boobu dafay bokk kon mbokk ku góorgóorlu rek yàlla soo xam ne dafa lay taw fii kon ñu ngi nekkoon ci dundu kenn te ñooñee dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkat kenn ci ummahatul muminin muy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkat kenn ci jigéen ñi nanoo ndax ak dundam dafa fees dell ci jàngale comme ni ko xam xam ngeen ni bii passé maa ngi jëloon bind wax la Aïcha ni tëddoo woon àddina gisoon nañ bind yéen te amoon waxoon naa la Aïcha ni mu ragalee woon yàlla gis nañ bind ba jàpp ci loolu lu am solo la tey ndax dañoo jàpp ne li ñu wax baax ak ragal yàlla ak dëddu àddina góor ñaar dafa fekk déedéet man amila salihan min dakarin aw unsa gis nga min dakar góor aw unsa wala jigéen fa yàlla lay féetee jëf yi waa ba ñuy féetee góor ñaar jigéen ñaa ko bokk amul waa bu ñuy féetee góor bu ñuy féetee jigéen déedéet min dakarin aw unsa wa huwa mu'min te muy gëm yàlla fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba allahu akbar ماذا تبحثين أيتها الأخت المسلمة لم تبحث luy rëbsu am dund gu daal am borom kër gu baax am àddina dëkk fu kan fu kan koo mën a jaamoo yàlla loolu nga bëgg waxaguma àddina de waxaguma àllaaxira lan ngay wut ci àddina nga am loo mën a dundee am borom kër gu baax bu lay jàppale am ak ragal yàlla projet yi àddina yi nga mën a jëm ci loolu nga bëgg dama ne yàlla mu ngi ku def lu baax min dakari aw unsa moo xam góor la moo xam jigéen la na yëg ni wala nuhyiyannahu hayatan tayyiba dinaa ko may dund bu daan bu teey bu neex ci àddina wala najziyannahum ajrahum ci àllaaxira ma fay ne bi ahsani ma kaanu yaamaluun da ngaa mën a def rek danaan damay defal fukk yàlla yàlla mu ne ma man laa fay ba fay la julli moo tax mu ne bi ahsani ma kaanu yaamaluun kon dundu jigéen mu xam Aïcha benn symbole la lu taxaw ci diggu sans tax jullit yu jigéen ñi di jàngale jullit yu jigéen ñu mu war a ragale yàlla ñu mu war a dëggoo àddina ñu mu war a muñalee borom këram rawatina bu leen yàlla mosoo ñaan ak ay jafe-jafe te waxoon naa leen nag ci jafe-jafe ni ca la jàmbaar yi feeñee ndax mooy bi tax garbala mooy bi tax sànni bi tax lay kaw la ñuy xàmmee ku teew ku bi kon muy lu am solo la waxoon naa la dina wax que ni ñu sabee woon ci man di joxe ne woon naa la yéen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam pour war la jigéen ku góor nga defee lenn moom war naa joxe ñaar yéen yàlla dafa jiite ay kori dafa tabax ba nopp waar góor ñi te bu dee waar góor ñi nii ngeen toogee lay toog góor ñi nekk jigéen ñi ci ginnaaw xanaa fi mu taxaw doyal na mu taxaw ko wax waaye déedéet pour wane ne li nga wax am na kaw dafa déplacé wu bàyyi góor ñi def ba wan góor ñi ginnaaw jàkkaarloo jigéen ñi muy taxaw baax na maa ngi leen di dénk dee leen tax ndax gis naa ni yéen ëpp sawar benn jigéen daal di jóg laaj ko ni ko yéen sawar mu xew ba ñun ñu ëpp sawar mu ne ko tax kul naa achir da ngeen di weddi yekk wa tax kul na laa da ngeen di bëri lu muy juróom am na benn xadis riwaaya boo xam bokku nit waaye dafa sawala kul al ahmara ñaari xonq yéen yóbbee ba ngeen ëpp sawar or xaar gis nga jigéen ñu bëggee loolu ba ëppale sax góor wàllu takkaay ah bari itam mooy yàlla subhanahu wa taala bu ko yàlla dimbalee kon damaa bëgg wax ni Aïcha ci boppam mi ngi jàngale waaye ba léegi tamit tomb bu mënta woon te mat naa bàyyi xel mooy jàmbaar la woon yoo xam ne keroog wax def na may jaloor yoo xam taarix da koy indi keroog Kanda def na may jaloor yoo xam en tant que ab jigéen ah di dugg ci biir góor ñi di service wax góor ñi daal Aïcha ci boppam kenn ci saxaaba yi mooy nettali mu ni keroog bi ca boxat maa ko gis maa ko gis muy dugg ci biir mbooloo mi ànd ak jigéen ñi ñu yor ay muusi ndox ay takki ndox di ko jox góor ñi nga xam ne dañoo daal ñii ña ngay sukaraat di waaj a dee ñii ñi ngi am jafe-jafe ñii ña nga leen di jàppoo di leen yóbbu te xam ngeen ni jigéen yàgg naa nekk jàmbaar bi mais dañoo ci xaar ñu yaakaar ni góor ñee soxla leen xaar déedéet mi ngi may fàttali lii mi ngi may fàttali jigéen joojee nga xam ni yonent yàlla bi moo ko faloon mu nekk xaasam ci biir optaan ci biir jàngat am na kenn ci saxaaba yi ku ñu wax Rafiida yonent yàlla bi da koo defaloon am mbaa ci biir jàngat bi kenn ja buñ mataan a am ku sonn lool ca góor ña ndax góor ku mën a xas nekk ci góor ñëpp la ci jihaat ja loolu dara la ko lay wan ne kon bu ñu tolloo foo xam ni soxla nañ faj te góor gi am ku dul jigéen jiw wala jigéen gi am ku dul góor góor jiw ba lépp baax na dara tegtal mooy loolu saa yu mu aana ñi nga xam ne wax na ci xadis donte am na ñuy wax ne xadis la am nay dëgg dëgg waaye li gën a dëgg mooy wér na mooy yàlla ci boppam li saa yu mu aana baaxoo arsul dafa yëngatu ihtazza arsu rahmani li mawti saa bi kon li baaxoo ñu jëm ko jëm jëm bu métti moo xam ne dafa baaxoo rafiida moo ko rafet ci gàtt yi ko xool kon damay wax ne jigéen ñi yàgg nañoo def ay jaloor damay fàttali bu mu waatu ya ma nga xam ni moom la yonent bi falal de jigéen ñi mu féete wa sangum néeg wallahi kon lii lim la yoon mooy jigéen ñi yàgg nañoo def ay jaloore mu ni faral na sax ya ma nga xam ni keroog ba yonent yàlla bi bàyyee jigéen ñi ñoom kenn ñu xis na ba yëngu ko ñëw di wër di wër ba xam ne ay jigéen kese la sax ya takk ndiggam ñu tóoj leen ma ñu tóoj ko suñ bopp ko mu yéeg ba di nga wax ne di sànni xeet bi yëngu bi ci digg bopp ba pare fekk ne boo fi jógee di nga xam ne yonent bi jigéen ñi mel ni ay góor la fi daan subhanallah moo tax toog taarif da ngay gis ay jaloore yu bëree bëri yoo xam ni jigéen ñi yàgg nañ kaa def ma nga lay fàttaliwaat keroog ba yonent bi naan ay waay say kontaan naa waay ñu ne ko yonent la kontaan la mu ni bu ma wëlbati ko ndey joor wëlbati ko càmm gis jigéen ju màgg sol li ñu ñi ñuy géere ba ma defee ni góor la mu may défendre ndey joor ak càmm nekk kan la bu mu am yëpp yàlla mu ne mu am naa rek keroog comme ma féete woon boppam du ma ko fàtte mukk du yomal xiyaam fu mu wul bëri rek ñu ngi taw di baare daal di dal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndekete yoo nga naan waaw kii góor la am jigéen kii góor la am jigéen ndax xeex bi tàng na ndekete yoo am jigéen kon lii dalay wan ne wallahi jigéen ñi mosuñu def gannaaw léegi ay jàmbaar lañ ko doon maa am seen ginnaaw moom li ma doon faral di wax rek des ginnaaw bii ma gis ci jàmbaar ba xam-xam mënumaa wax ban at la tàmbali waaye xam naa ne yàlla loolu moom wér na kon عائشة جنب على المصدوم نريد أن نقول هكذا فلتكن بيوت المسلمين ولكن مرة تيري جزاه الله كل خير أبو عمار محمود المصري قلت لي قلت أبو أنصر te yi nga bàyyi woon xel yëpp ñu ngi ci gën a bokk mu ne hakada faltakun buyutul muslimin nii ma lay bëgg a wax nag noonu la kër julit yëpp war a mel lii ma lay wax noonu la këru jullit yëpp war a mel nag xadis bi may bëgg a nekk mi ngi ci buxaar yi mi ngi ci muslim tamit ba léegi boo demee ci téere sunna di ko fekk xoolal mbokk yi ab jullit bu jigéen ni ko yàlla sante ni ko yàlla subhanahu wa taala fiire allahu akbar mbokk yi sax ñun jii diine Muhammad doo dul sax ñu ngi ñu ngi koy julli islam dafa fiire ku jigéen di ko fiire di ko fiire ba mu jeexee billahi alaykum kan ngeen yaakaar ni moo war a bàyyi iman bàyyi iman bàyyi ba bàyyi ba ci dee ñu koy waaj a tuuli muy xet may xet lu koy doyee ku dee ñu sànni ko perta teg ko ci kaw jàng nga xam ne boobu loo bàyyi bàyyi sa xol muy dellu ci yàlla kooku mooy doyee ci jigéen ñi waaye yàlla mu ne dee kër ci daje bi loolu moo tax ci sunan yi li may wax góor ñi dana ko xam ndax dem nañ armée la jigéen ñu bëri lu ñuy dem fekkee jullit ñëw wala suul ñëw jigéen gis nga loolu ngay seen muy seen boobu ñu koy muural loolu ci bidaay de loolu ci sunna la bokk ñu defal ko ci biir ndax tàng ko bu benn góor gis sax markat loxo allahu akbar dal bu xawaaye sax boo demee seen fekk dañuy wuute ndax jigéen ji bu dee te amul ku ko sang lu dul góoru jàmbur ndax dañ koy jiimal wala dañ koy suufe xoolal lu waral loolu ngir wala di góoru jàmbur nim la war a bare waxoon naa la fi la yent yàlla boo xam ne da ngeen di yéemu ci fiir saad gi mu ne wallahi maa gën a fiir saad ma di wax subhanallah xoolal ku fiir ba saaba yi nee ko teedal ñaan moom mësul tax jigéen judul jàng te fu mu takkee loo ko lor muñ ne ko ndax bëgg dafa te keneen di jël ndax fii subhanallah ndax man fiir a xam fii aalami naas ku fiiree ni ku fiir ba doo tax ku dul jàng te koo am lu la def neex ndax bëgguma laa takk beneen góor di la jël xoolal waaye yàlla moo ko gën a fiir sallallahu alayhi wa sallam ci nit moo ko gën a fiir xoolal l'islam da lay wax jigéen ñi mooy wax mu ne wala taxbaana bil qawl mooy wax rek leen sa baat bi comme ni nuut ñu not di ngay waxoon ci jub wax joo xam ne doo wax benn baat buy charme ay góor wala dina yëngal seen xol subhaana rabbina xoolal yàlla nee na saxaaba ya fa yatma alladi fi qalbihi marad ñan la ay rek saxaaba yi nga xam ne du lay sa saxaa nga xam ne seen xol yi mu gën a wax suñu xol yi suuf amul weer fa kay fekk ñun xoolal booy génn mu ni wa kul lil muminat yaxdusna min absarihinna sa jal tay xet ndax léegi day nga xool lu xaar nga ne ma la xaar ci man léegi sa jal tay xet ndax léegi day nga xool lu déggoo jaamur am bu ko defee nga koy bëgg léegi soo ko gisee xam doo gis loo loo looy jëgal nga mën a mucc wala ka nun ak borom sa salama ni booy génn na nga dox wala yadribna wala yadribna arjulihinna li ya'lam ma yukhfina min zinatihinna booy dox bul jàpp sa tànk di kar karam yi mel ni fas kurtu wuy daw ba ñuy dégg li nga xam ci ay daa wala ñu xam ne yaay ñëw subhanallah ñaar ci ay diggante bu ñuy ñëw boo nekkee da nga xam ne lii moo ñëw ndax lu ndox lu ndox mooy sa tànk lay ceeb di dal ndànk bu kenn nit ñi sax yaay ñëw ci sa xeeti oto yooyu nga xam ne amul wiir nga xam day ñëw ba sa romtaan yi bu ko amul doo ko gis noonu la war a mel xet la bi sa dara sa dara yëngu yéen yàlla ne leen leen koo ko defee dañoo amoo àq dox ci digg mbedd xool yéen yàlla ne amu leen àq dox ci digg mbedd dee leen dox ci pegg miir yi billahi la abi saxaaba yaa ngi dañ daan dox ba seen yéen yi xottee ko ndax sàkkat yee koy yomb lu tax ndax yéen yàlla moo ne leen sañu leen a dox ci digg mbedd da ngeen di jaar ci pegg mbedd yi muy riche mbedd yi suñu lay jot ñu ne asalaamaaleykum rek bala ngaa def ndax jigéen ñi ñëpp dem nañ seen yoon Aïssa dana laa yaarifuhunna ahadun min sil min ah min silatil xalam bu ñu sëlmalee rek ak yoon bi mooy fajar da ngay da ngay seen moo rek nga xam daal kenn duñ ci gën waaye doo xam sax kum doon ba muy silit wan wax la leen ci fajar ak ak ak yoo xam ne buñ ko toppoon ñu jël suñu bind fii nag déglul xalis bii nga xam lii ndax yow gis nga waxuma ndax yaa ngi koy gis xale ba sax moom xam naa dundoo waaye ndax gis nga sax ku koy dund ndax dama roy ci moom ak imam Buxaari yi mu ngi nekk di ak muslim Aïcha nee na sama benn papa boo xam ni papay nàmpal la ci man papay nàmpal mooy lan aada bi léegi dafa xew arab yi ñoo mën aada mooy boo amee soxna ngeen am doom da ngay jël doom bi meer jiw meer jiw daal ku baax la ku wér la ku am yaram la su ma ko joxoon sama doom ji mu koy nàmpal ma di ko fay par weer kon xale bi ci lay gën a wér te loolu islam dàq ko dagan ndax Muhammad sax def nañ ko loolu la ko yóbbu woon ca bañuy saab ca xalimatu saad mu di ko nàmp loolu la woon deuxièmement mooy nitu kaw gi moo doon gën a wér nitu taar defe naa loolu moom xam ngeen nitu kaw yi gën a wér nitu taar la koy dig digul nitu taar wolof bi ñuy làkk sax wala làkk bi ñuy làkk fekk kaw daa koy gën a dégg fii samay wax mbokk yi ñun waa Dakar ay faranko olof la ñuy làkk ay faranko olof di jaxase rek ñi tëmbali dem waaye su ma nee àll ba ci ñuy dégg waa ci olof bu seen bët lay xamoo yooyu ak climat ba fa nekk maa xam nga ni fruits yeeg gàncax yii ngay noyyi muy ànd ci ngelaw yi dafay baax mu ko def poussière camion yeeg super yeeg kaaraat yi ci dëkk bi moo tax loolu bi muy cancer ay sëqate lu kenn xam lu ne dina jàll dina daal parce que li ñuy dund moo baax bala nga cee xam dara mu taw gis nga bu tawoon léegi looy génn subhanallah da ngay mel ne dama ci xefes ka parce que taw bi day yàlla min rahmatihi allah min rahmati rabbina bokkul ci taw bii génn rek li loolu ne xabban wa nabaatan wa jannatin alfaaba waaye yàlla am na lu mu tudd lu te loolu ci la bokk mooy lan mooy jaww ji lay setal wicc bokk seen bi ci nekk rek kon gis nga loolu tax Aïcha mu ni bi am na koo xam ni soxnaam daf maa nàmpal maanaam benn waay boo xam soxnaam daf maa nàmpal kon waa ji lan la ca aayus bu dee ci lislaam papa la war a doon ci moom kooku nàmpal Aysa doomam bu góor du mën a takk Aysa ko ndax nàmpal lislaam koo nàmpal lool bu yee boobu la fii ba kii ko bu sëy jotee doom la takk kooku ndax yéen ñaar yéen a bokk yaay ndax ku la nàmpal rek nekk na sa yaay kon kee mu ñëw gane ci Aïcha bi ndikkee bëgg Aïcha ni ko dellu yent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam déglu bu baax ndax góoru jàmbur bu ne du la fekkee fekk sa borom kër lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci li ñuy tay ban mu koy da ngay wiite mu waaye sa kaw la lu jël ngay àndal mu toog dafa ne xaraam alay dafa bokk ci ay teggi mukk ak ku mën a doon ci kaw suuf ak ku mën a doon ci kaw suuf laa wax bokkul ci ay te ñëpp mën ko mën di gëmoo kan nañ bàyyi dama utal ko feneen pour fu muy toog ci salal doon sa loolu mooy islam loolu mooy xorma loolu mooy teggi allahu akbar gis nga boo waxee mu fàttali leen du saxaaba yi kon ma ngi lay fàttali ndaw sax Ummu Habiba Ummu Habiba bint Abi Sufyan Ummu Habiba doomu Abi Sufyan allahu akbar aba Usman wala Abu Sufyan tuub dafa ñëw seet si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko seetee mbokk yi xool leen Abu Sufyan xaaral ñu ne ko toogal mu wax danaan dem di waaj a toog ci la Yonent bi mu ne ko mukk dugal dugal dugal xam yéefar du ma ko bàyyi mu toog ci la Yonent bi sallam te mooy bàyyam allahu akbar ab yéefar du ma ko bàyyi mu toog ci la Yonent bi te ki muy waxal mooy bàyyam subhanallah xool sa bàyyi yéefar du ma la bàyyi nga toog ci la Yonent bi sallam ndax yow boo amee dóoru jàmbur noonu ngay def yàlla boobu nekk nag te nga te nga gën a jàpp ni foo nga leen war a accueillir wul ko bokk sa jëkkër ndey ak baay dama ne bu amoon kenn kuñ war a xatal kooku la yéen yàlla ne bu góoru jàmbur weer ak jigéenu jàmbur kenn ni ko aaro ay alhamwa ku bokk sa jëkkër nag mu ne alhamdu al maw ni kee garaawee kooku noonu la garaawee la hawla wala quwwata illa billah undur ila taabiri nabi sallallahu alayhi wa sallam alhamdu al mawt alxamu huwa alxamu wal mawt huwa al mawt ci bokk sa jëkkër ndey ak baay xoolu ko ni mu ooree xool dee ni mu garaaw lu tax mooy dee boo defee sa dabur waxin sa sam da ngay gis ni ndekete jaamur sax am na yu muy dal waaye ci bokk sa jëkkër ndey ak baay su ma njëriñ si nit néeg ah lu may ñaaw njort dama naa si moom ci xel lu may ñaaw njort ñàkk ñaaw njort googu ak ñàkk bi ñu koy ñàkk bàyyi xel moo tax mu def mu tuma yow moo gën a yomb moo tax wal mawt ashaddu min al mawt moo gën a garaaw dee ndax yaa ngi def lii ndax nit dina ñëw seet la nga ne ah sama borom kër nekk fi tey kat dellu waatal boo ko defoon waaju bàyyi ci yoon boobu nag mu ne waaye yow man maa waaye man am am naa kër mooy yow dina def nga def daal subhanallah te fekk yaa ngi dax alquran wa ida qiila lakum irjiu farjiu ñoo gis surtout bu waaye bu ne leen dellu leen dellu leen nga dama am nekk ñu kon ñu jeex bu alakaala loolu gëm yow xamoo lu gën a lu gën loolu mooy li gën allahu akbar lii ndax ñu ngi koy gis Aïssa nee na ma ne waa ji jamal waa ji dem li nga ci ñettee ma ne ko yow da am na sax ginnaaw biir sànkam sama bàyyi ba bàyyi bi de ñëw na bi waaye bi ñu ñëwee di la seet dama ni ko dellu ñeent bi ne mu ni ko nee ko na yegg si na yegg si kooku sa bàyyi la kooku sa bàyyi la mën naa yegg si bàyyi la ci yow yéen bi ni ko ay ni ko kon kooku daan ko lu ma jabar moo la nànkal du moom moo la nànkal mu ne ko moom nànkal ma jabar jee ma nànkal mu ne ko dama ni moo la nànkal ak jabar jaa la nànkal ak yow maa daal sax naa moo la nànkal bàyyi la ci yow ndax kam nga jur maam ndaw sax yow mënoo koo takk ndax asul laka min arabaa asul laki min arabaa moo tax booy dem ci almuharramaat ñi nga xam dafay dagan nga tëyeeg ñoom ak ñi nga dagan nga tëyeeg ñoom dafa am ñoo xam ne di ko almuharramaat ilal abad am ñu tudd almuharramat li sababi radaa almuharramat li sababi muaxar koo xam ne daa araam ci yow yéen abad mooy ko bokkal ndey ak baay ak ñu mel noonu bokk na koo naan taale kooku moom bii daay yëngu yàlla bi lu soppeeku am am am doog na ak ñu mën a jaar la laa xati ko tamit am na koo xam ne xaraam na ci yow waaye muaxar la muaxar mooy lu am jiir ki nga fase ñetti yoon xaraam na ci yow waaye du abad ndax li tax du abad mooy bu benn góor la ba mën nga kaa jigéen ci naka jigéen ak bàjjen na mënu leen booyee tax waaye boo bokk gën bi man mën ngaa takk bàjjen boo ko doon bàjjen mën ngaa takk comme comme jar baax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñaar ñu bokk ndey ak baay mënu leen a boole waaye xaram bi mu mu am xam na bu kenn fàtte mu war a kenn bu ko nee kenn mu nekk kenn am na loo xamante ni nag mu xaram xaram lay doon waaye ci ak sabab lay doon comme yu mel ni rabaa bi demee noonu kon li ma bëgg wax mooy xaalis ci boppam accord na ci fiiraay bi ba maanaam mu ne ko arba akulil ba wala lu ñu ala rajul soxna ma nàmpal waaye du moom moo ma nàmpal yéen bi ne ko illa ko am waaye kii sa bàyyi la fa leen fal yéen di alay bu ñëwatee encadré ko sa bàyyi la kon bon kee mu ni wa hakada fal takun buyutul muslimin mu ni nii ñu ne kër julit ñi war a mel fa innana nasmau an il maati wa aati wal jaraim التي تحدث في بيوت كثير من المسلمين بسبب عدم الالتزام بتعاليم هذا الدين العظيم. لقد صدقت يا ابا عمار. من اليوم يجيك اي خطبه اي سجاده yoo xam ne ñu ngi am ci këri jullit yi ci ñàkk sàmmoon seen jàngale yi lislaam yii moo tax lii moo tax nañu war a setal kër gi allahu akbar kër gu mel nii kër goo xam ne bu góoru jàmbur ñu ne kenn du ko nangoo entraîné lu dul góoru kër gaa xam ne kër goo xam ne moo wéetal moom moom moom góoru jàngam kër goo xam ne moom mooy yàlla subhanallah maa ngi mooy ndik ba su ma amoon mooy mooy dama koy laaj ci feneen ndax di ko laaj ci kër gi dama ne kër gi boo ko ñaanee yàlla mu nangu ko kër gi yàlla dana fa wàcc arrahman ay yërmande ak i xéewal ak i tawfiqa waaye loo ci ñàkk jàmm tàmmoon ceeg njàngale li sax moo tax jaamu yàlla sax mënatuñ ko suñu biir kër gi gis nga boo nee ba tàmmoon ceeg wala jàngale da nga da ngay bëgg a jaamu yàlla si kër sax doo ko mën am na koo xam ne ma nga gis foofu mu su sew luy ci passé rek boo xam ne day sàmm di ko yàq ay kenn waaye xol ba fekk na dem ak iman ak ngëm yàlla deful nii dem ba armeel ma nga fay naafilaal yàlla ma nga fay jàng alquran ñu ngi jéggal borom këram ginnaaw mu jéggalee boromam dama ne ñii suñu amee soxla wallahi yàlla dañ koy fajal subhanahu wa taala ndax yàlla dañu woon ci xadis al xudsi ba yonent bi sama jaam bi yee damaa bëgg nga bëgg nekkal na ci li ma bëgg ma nekkal na ci li ma bëgg lii neex na subhanallah mag mu doy ni yàlla kilifa bu doy ni yàlla buur bu doy ni yàlla ah ni la nekkal na ci li ma bëgg man ma nekkal la bonne capacité nga am loo def yaay kal da yàlla di la nekkal ci li nga bëgg waaye fadli moo tax mu ne boo ko deful li ma bëgg moom ku ma jaar dana nekk ndax dina am ñeneen ñu ko def tey dinaa karajal sa dund nag xajamal ko te doo ci mën dara te loolu mooy yàlla kon mbokk yi jullit bu jigéen ñi nii la war a du ma jëkk benn góoru jàmm ay waxi naka naka nag waxi tappale yooyu waxi caaxaan yooyu tee lii sunu mbokk ma doon wax jazaahullahu kulla xayr wa xafisa Cheikh Aboubacar Sall bu parcelle day wax ci benn ci kàttan mu ne bu dee góor jàmmoon da ngaa wér mel wér war a mel ni ci moom ngay wér ci subhanallah naka laay ubbilee sama kanam bu may wax góor jàmmoon ci waxoon ci lool ubbi sama kanam ngay ni soo am sama borom kër te loolu koo ko am ci man sama borom kër dugg yow yaa ngi bàkkaar ñaari yoon parce que yee dañ la koy def lii nga def dëgg la koo digal bàkkaar la ñaari yoon wax nga nga mel ni ngay wér ci bi su fekkee góoru jàmbur la bu leen jëf sax bu leen jëf yéen sax dañoo guus yu bëri mu am tur la maa ngi dem amul ay caaxaan déedéet yaa ma lii maa ma lee moo ma lii maa ko lene yu déedéet ñu amul almisaa dagan na waaye dafa am koo xam ni balay yem ak ñu ngi koy defal ñu ngi ko dul def xoolal bi subhanallah da ngay dem ba dégg wax yoo xam ni waaw ci ko mel ne muy dëgg la te dafa mel ni ku dem ba yegg ci tuwaab ba ñemee koo dóoru jàmbur naa ko pare da ngaa leer loolu ci wallahi li may wax lu may éventre li may wax li may wax lu may éventre lu am la xool dama jàmbur pare da ngaa leer loolu ci moom yaa ngi lii lii bu fekkee ñun société bii moom lañ naan wallahi ñu ngi toll Muhammadullah nit ñi nga xam ne jàpp nañu ñun ñoo ci gën a jege Muhammad bu ñu xoolee dañ naan ko gis nañ Muhammad ñun lii la ñu tudd tuddal Muhammad boo xamante ni dem na ba mën a xool sax na jàmm ak sa yaay dafa seere ci mën a xool yow. yéen kan mën a xool ba ba fii lañ wax fii li may indi loolu lañ toll. kon damay wax ni man xaj yéen sa al man xajul na wallahi wallahi fay nañ bu demee ni jege na ko dañuy wax suñu bopp. kon nii la saxaabu yaay yi meloon doon gisee seen biir kër. kadaalika mu ngi gisee ay baax xëy na li may nit ñi nit ñi ma ko ma xam ni ngi dund ba tey koo xam ne góoru jàmbur moo jóge fu sori réew réew ba réew xam nga réew ba réew sori ñëw fëgg salaamaaleykum ana diw mu ne ko diw kat daa liggéey ah du ma la mën a entrer ndax daa daa daa liggéey demal fële kër sàngam na la yóbbu si jàkk bi nga toog lii mbokk mi dal ma ko ci koo xam ne ñu ngi dund tey nga xam ne wallahi li may wax di ko baalu gis ne bu nu marché ñun la ko waaye am nañu baax yeneen ñettee dama ne dem na benn kër ndongoom bu mu doon jàngal ndongoom la mu koy jàngal mu ñëw benn bis di ko seet fekk jour boobu seen waa dañoo dem xew muy kóor nee na ma fëgg ci buntu kër gi mu ñëw fekk si ma ba ci buntu bi ne ma ah day kat dooma na yegg ndax kër gi kenn ñëw subhanallah mbokk mi ma kontaan ndax li awoon na nar sama dund gi ma jël ci jënd suma mel ni ci naa lii mo bu la tëye am ñu yow kon lii moo war a dox si diggante góor jaam ak jigéen jaam dëgg la nag danañ waxante ay baax danañ waxante ay soxla waaye nag nañ xam am na bu frontière yi l'islam wax nañ fa yem foo xam nañ fa yem loolu laa gën dalika atharu li qulubihim wa qulubihim loolu laa gën a sellal suñuy xol moo gën a sellal xol ba tax léeg-léeg gis kuy góorgóorlu ci wallaay kenn ñoo koy ñaan ba ëppal yow kuy góorgóorlu ba na ngay yàlla mu yàlla da nga ne mu am jàmbaar te mu wóor la kanam boo ko mën mënoo ko kenn ko mën defal par force waaye nag boo ko ñaanee boo ko xam wallaay boo ko ñaanee man naa am bu la yàlla ci lu dugg ci qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un voilà saxaaba yéen seen biir yéen ngan loolu rek lañ wax xool saxaaba yéen sa dara ulay fal kubra jàngkat alxana yéen seen biir yi ngan loolu léegi da nga koy wax ndax ab saxaaba ah gars yi di ko saxaaba yéen sa salam di leen saboo yéen jàng alxuraan rek jàng alxuraan rek rek rek loolu leen dara di leen saboo di loolu dañ ko nekk day yéen sa alxuraan yàlla qul abillahi wa ayatihi wa rasulikum ayi ila la mo leen yàlla yéen di saboo alquran yéen sabab yéen si ngeen sabab laqad kafartum ba'da imanikum ñëpp yéen ay yéen ñu naan la ca wax muy la tànkatiru yow amul ci dugg inna kunna naxuduuna la dañ doon taxaw dañ leen wax mu ne abillahi wa ayatikum ah léegi mooy foofu yàlla ak yonent bi moo leen di def kon ku koy góorgóorlu yaa yaa ngi boo ko mun tamit bàyyi ko kanam leen xijaab xijaab ñaari xeet la parce que xijaab ñaari xeet xijaab bi tege ci kaw yaram ak xijaab bi dox ci diggante góor jàmbur ak jigéenu jàmbur boobu la yàlla mooy daal sa altumoohunna mataahan fasaluhunna min wara xijaab xijaab boobu tekku li ñuy teg ci bopp xijaab boobu mooy li war a dox kiiraay gi war a dox ci diggante góor jàmbur jigéenu jàmbur kon Aïcha mi ngi noonu ñaar dox wa tamma ta'wiru ru'ya yàlla nag dëggalal na ko géntam lii nii nag fàttali ak xadis bu yëpp yàlla wax te xadis la bu wér mu ni nu bu wamam jeex na dootul amat yàlla yéen a ko seet waaye nag lu jeex saadex def dara mooy jullit bu dëgg ragal yàlla yàlla day def li muy gént day mel bu yeewoo loolaay am subhanallah waaye nag wax ba ji ma lay defal foofu mooy gis ne kenn laay ni nga dëggoo ci li ngay dund loolu ngay dëggoo ci gént boo paree sax lay caaxaan doo gént ñu nekk dëgg mu wala dañ daa tombee rek subhaana rabbil alamin Muhammad ibn Sirin dafa ragal yàlla ragal yàlla ragal yàlla ba nee na damay tëdd ba guddi gént jigéen daanu romb ma ma def ko ma xam parce que benn waykat mu ni man de yàlla naa am iman Muhammad ibn Sirin sa biir gént subhaanallah xoolal mu ne yàlla na yàlla may iman Muhammad ibn Sirin sa biir gént ndax comme moom imaanam yegg na ci bu gisee jigéenu jàmbur ci biir gént day tax ci xefam mu ni kon yàlla man bu ko mën a am yàlla na may imaanu biir gént tam bopp kooku xam nga ne bu fekkee li ci gént na ko ci wax xoolal tey li suñu bëri tege ci ay muharramat Allah bëgg bañ li koy dawal yow da ngay da ngay gis lu bon nga ne xaaral ma dawal li dafa ngay dawal leneen lu bon la ngay dawal bon fekk yàlla rek moo ko mën a dimbali subhanahu wa taala gis nga kon nit ki ni mu dëggu ni mu góorgóor am na ñoo xam ba tey ba xatal ah ba muy xaati seen xibaar wax li may waxee am na jaamu yàlla yoo xam ne bu ñu génnee du sëy bi am na ñoo xam ne bu ñuy ñaanit yàlla yi naan ko loolu la yaayu yaayu yaayu fële waxoon taabiyaay ba maa ngi fàtte ci xajal bi Yusuf rayoon raxina tur am na kenn ci taabiyaay jàmbaare na ko wax jàmm sa yaram rey bu metti ga ba ñaanal ko yàlla ba reyaat ak keneen yaayam dañ ko yow bul ñaanal kenn bul ñaanal lu bon bul ñaanal lu bon lu tax ndax góorgóorlu ba yàlla defal ko nangu ñaan góorgóorlu ba yàlla defal ko nangu ñaan xool ak ginaar moo nekkoon ci biir këram di ko sabal fajar bu jot mu xam ni waxtu wi jot na fajar bi jot ginaar bi passé sab sababu yow yàlla nga dee waaye rek ginaar nga dee yaay ji ne ko yow bul ñaan bu ma dégg ci mukk nga ñaan lu wax xoolal ñaan na nga dee yoo xam boo demee da doon kat kon gis nga kenn usbuk ma allah dëggul ak yàlla subhanahu wa taala yàlla may la lim lay lim doon may jaam yu baax kon gis nga maa itam bokk na ci li ko yàlla mayoon mooy gént boo xam ni gént kéemaan la yàlla tekkee ko nan ko génte benn bis Aïcha dani man daal bàyyi dafa gis ci Abubakar ni ko bàyyi lii damaa gént gént bu kéemaane mu ne ko lu xew mu ne ko man daal damaa gént ñetti weer weer weer weer xam ngeen weer ñetti weer yu baax rek ñu suul leen ci sama biir néeg weer yi di ñëw di ñëw di ñëw ba yegg dina ñu wax sama biir léegi suufam allahu akbar ak mbokk yi ab bakrin siddiq yàlla da koo defaloon ku xamoon la aw askan la askan mu doon lépp ci biir madina boo dikkee ci aw bakar mooy sa fàcceel la ñun bu doon góorgóorlu gën ñu lay wax ñu ne géwél la subhanallah xoolal loolu yéen ci yàlla dafa xam sa askan daa bokk ci sunna ñun ñoo xamul dara yéen ci yàlla mu ne taallamu min ansaabikum ma fasulu bi arxaamakum jàngal ci saw askan loo xam ne boo duggee ko ndox sa mbokk di nga xam foo jëm lii sunu mbokk maa xam ne dem dana wax mbokk mbokk boobu moo laaj ko ni ko wax ma ko ñetti maam du mën a wax ñetti maam lu tax ndek di loolu mooy sunna yéen bidaa ci nga nekk yow yéen ci yàlla mu ne jàngal saw askan nga xamee sa doon jokkee sa mbokk kon li la ñàkk def moom mooy sunna ñàkk yëg-yëg ñàkk yëg ci déedéet sunna diglewul loolu fal jokk sa mbokk day maye gudd fan comme ni kenn ci wax sallallahu alayhi wa sallam aw ba xekk yàlla mayoon la ci di génn aw ba kan dënd moom yàgg mu ne ko ah ay sa génn gi bu dee dëgg day ñetti ponkal dinañ suulu ci sa biir néeg bi boobu yéen ci bi faatoo ba yéen ci bi faatoo Aboubacar bàyyi ay fan mu ñëw ni ko ah wenn weer wa suulu na de ñaar ñaar say ko xaw ma ndax xamoon na ni moom ci la bokkam déet te maa ngi yaakaar ne xanaa yàlla xamaloon na ko allahu akbar Aboubacar faatu ñu suul ko ci biir néeg bi Amar faatu ñu suul ko ci biir néeg bi ñetti weer yaa ko lii mooy la ñu doon inni raaytu ahada achara kawkaban wa shams wal qamar raaytu lii saajidin Yusuf daa ko ba guddi gént fukki biddiw ak ñaar fa ànd ak jant beeg weer yi ñëw ba ci kanamu Yusuf di ko sujootal xam ngay suuf ci Yusuf gis nga wa shams wal qamar raaytu lii saajidin ah fekk nabiyullah Ayub yàlla mayoon la mu firi gént moom it mu ne ko laa taqsus ruyaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda gént bi bu ko nekk li mokk ndax lii bu ko say doon bàyyi jéggee musiba dana am ndax xam na ni gént bi lu rëy la dara doon xista bu gudd la suratu Yusuf dana ñëw incha allah ci dara tafsir jamonoy dem jamonoy dem dañ tàmbal Yusuf ci fen ba jamonoy dem dañ jaay ko buur ba jamonoy dem ba mu nekk buuru Égypte ba benn bis ñëw yàlla def moo nekk buur mu ne waxtu nii bi ahlikum ajmain dem leen bàyyi ñëpp indi leen leen keroog ba ñëwee may saa ñu koy nuyu nuyu màggal loolu mooy sujud ka ah mooy fukki doomi bàyyeeg benn fukki doomi bàyyeeg benn ak yaayam ja desoon ca kër ga ak bàyyi muy yaqub wa samte wal xamara mooy yaay ja ak bàyyi ja kon gis nga kon mbokk yi nii mooy wane maa nit nu mu dëkkoo rek yàlla daf koy defal ay kon nii la Aïcha génn ñëwoon génn ci noonu la ko yàlla tekki leen Aïcha radiyallahu anha wa xayaan yaajuzu alqalamu an waqtihi aw yaajuzu Aïcha ak am kersa goo xam ni bit xalima ci boppam tële na ci bind ko ndax bari kersa est-ce que jullit jigéen ñi am nañ kersa tey est-ce que kersa def na kersa muy sifa boo xam ni man damay wax ni suñ ñu ma woon tànnal benn melokaan kese maanaam nit kaa ngi nii benn melokaan kese moom ngay tànn man dama naan kersa laay tànn ndax daf ma wóor ni ci settantal jàngale yonent bi kersa ku ko xam nga lépp moo tax ida lam tastaxyi fasna ma chita boo amul kersa lu la neex jombatu la mën ngaa def lu la neex dara jomboo loo def ak yow ah kersa alxayaau min alxayaati ah kersa mi ngi jeexee alif hamza xayaat muy dund mi ngi jeexee taapoom bi wala taabu ñu wërngël ah alxayaat mooy kersa alxayaat mooy dund la xayaata bi duni xayaat dund gi bu ci kersa amul daanaka du ko doon donte yaa ngi dund xamal ni ajsaamuhum qabla alquburi quburun seen koor yi seen jëmm yi ay koor la yuy dox dee nañ ba noppi rek dañuy continuer doxal ko waxam rawat na nag jullit bu jigéen bi nga xam ne moo war a nekk ramzu lil xayaa lil xayaa am kersa subhanallah ndax dégg ngeen fi aalami naasi am kersa rus góori jàmbur yi ba rusaale sa borom kër loolu moo dara na Aïcha rus góori jàmbur ba rus sa borom kër xanaa sa borom kër su ma bokk ci ci nag bokk lii mi may fàttali ak Umu Salama xel ba mu jéggee yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ah ku tëdd ba guddi guddi mu génn yonent baa ngi toog mu salama ngi toog sa borom kër la loolu ciy wis dañuy nii làq kanam gi ne wa tax lumul mara laaj nga bàkkal mu ne yonent bi waaw jigéen bu tëdd di génn xel mu baax kanam gi lu tax ndax daa rusa laaj bi dafa kenn taw mu rusa jàkkaar na borom këram di ko laaj loo subhaana rabbil alamin xoolal rus ba rus sa borom kër lii mooy kenn lii moo ñàkk tey jigéen daal toll boo xam dina am lu bëgg a wax borom kër du ko mën a wax ndax kenn xam su fekkee kooku toll na fa comme diggante na góori jàmbur yi sax tax la ñuy wax déedéet waaye xoolal tey li ma doon wax sànq laay waxaat la dund gi dafa yegg ci dëkk bi ñi nga xam ne ñooy ahlu sot occidentaux yi xeet yi ñuy def film yeeg théâtre yeeg télé yeeg yooyu yàq xol yeeg ah waaye non kii garaaw kii samay samay collègue lañ sama lan samay collègue ba ci lan samay collègue kii sama jabar la samay collègue lañ xam nga ñoo bokk société bu ñuy liggéey la ah say collègue ba ci lan kii ñii say collègue kii sama jabar la collègue yooyu islam daal suñu ñam loo loolu ngay def ba dindi kersa yi ci yëpp ba léegi te am yoo xam ni ah góor jigéen waxuma la islam teel na waaye waroon na ko rusat ci kanam ci kanam góoru jàmbur waaye déedéet lu tax parce que gars yi dañoo fexe ba xeex ni ci alxadul fikri yi ah muy ni ñuy xeexee nit ñi ci wàllu xeme xuma agression culturelle la ñu koy xuma xeex ni ci wàllu xeme ba tàbbal ci suñu biir ay mbir yu bëri yoo xam ne dañ ko lekk te mbëpp ay xeeti film ak ay mbir yoo xam ne waxuma la waxuma la xaram la waaye day yàq sa fitra day yàq sa fitra am na loo xam ne jigéen daal ko léegi rusatu ko am na daal rusu sol léegi rusatu ko lu tax parce que dañ ko wasaare ba ñëpp jël ko moo tax jullit bu nekk war naa def góorgóorlu lu mu mën ku tele mënta ñàkk biir këram it mu xam waxtu woon koy taal ak la koy fee ndax yaakaar nga ni su yonent bi ne kër bu am ay nataal malaaka yéen maana du ko wàcc ba kay ba ka nataal bu génne ci écran télé nekkaay lu xaram teg ci xanaa boobu danaan ko laaj nga sax ci buntu kër nga sax léegi dootu ko taxaw day romb daal yu bari tey ay xeeti yéen maa ngi ñu koy xam ci bopp yéen kon ah est-ce que bari woon kàtt la firnde bi mooy lan mooy lii radiyallahu anha ak kersa boo xam ni xalima tëlee na ci di ko bind comme li ma la jox tànk jigéen ñu baax ne noonu lañ meloon ci kersa ak ragal yàlla borom téere mu ne inna almar'ata almu'mina bi fitratiha taqiya tastahyi min ayi rajulin hatta walaw kana zawjuha mu ne jigéen ñu baax yoo xam ni yàlla def na fitraam baax na dem ragal yàlla góor yi àddina bi yëpp lay rus ba ko doon sax borom këram nee na comment bandu bi man laa tastaxi min al axyaai fa xasbun bal tastaxi min al amwaati allahu akbar mu ne su fekkee jigéen jàmm daa war a ragal yàlla ba am gàtt ci góor yëpp ba ci borom këram lan nga xalaat ci jigéen joo xam ni capacité dépassé na di rus góor ñuy dund waaye day rus ba rus na dee ñu dee loolu di gisu leen gisu na loolu gisatee waaye Aïcha dafa yeggoon ci bàyyi kersa bay rus na paas xadis baa ngi nii Aïcha mu ni nee na xam nga Aïcha néegam fa lañ suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax ñu suul ko fa lu tax ñu suul ko fa ak yonent bi paas fa lañ ko suul lan ba yonent yàlla bi tëddoon sallallahu alayhi wa sallam biñ faatu lan ba lañ jéggi teg bëri ba tolloog lan ba ñu wax sa bàmmeel suuf subhanallah man day yéem naa lool sa Aïcha borom kër ak ni nga ko bëggee ak fi mu lay toll bu faatoo ni ngay amee aw tiis ñu suul ko ci sa biir néeg nga bokk ak moom gën ni fan ndeke mbokk yi gëm yàlla iman lu ne man am iman lu ne man am loo jàpp ni iman mën ko rek iman man la xam nga lii bu doon iman bi sax yow bu fekkee sa borom kër day faar ñu suuli ko ci armeel ya nga dellu si ci kër gi te ñëwoo mën a ñëw fii ci néeg ba dañ naan mel ni wéetali ndax xalaat yi parce que yow subhaana borom këram la ci biir néeg ay sama dama naan jeex dëkk yàgg yi comme dafa gën a dem ñu doxale ko ci diggante armeel bay néeg mais su ma bëggee ziar li ma mos a dem Mbacke mbaa tay baax sax damay ñëw rek ziar armeel bii ñaanal ko yàlla génn na mu nit jamonoy soxeeku bañ suul fa Abu Bakar mu ne su ma bëggee dama naan sama borom kër sama baax damay ziar rek génn na waaye mu ne ba Amar Paa loolu ni suul ko fa mu ne su ma bëggee ziar damay jël baax ba muur sama xar kanam doog a ñëw ziar mu ne laaj ñu ne tax mu ne istixyaan min Umar ibn Xattab dama rus ko Omar xayya boobu ñu taal allahu akbar keroog bi Omar ibn Xattab di faatu gisoo ñu yëg ko xam naa ñun daaw ñu faatu faatu dem ko waxoon naa ko fi xam ngeen ne dafa yabal doomam Abdullah ibn Omar ni ko demal neel Aïcha undur ci oyo ak ragal yàlla mënoon nañu ko neel Aïcha amirul muminin ci jiite jullit ñi waaye waxul loolu de dañu ko Omar ibn Xattab moo ma yónni ñu ko te bu loo xam ne waxal Omar ibn Xattab nee ko moo ma yónni nee na da lay ñaan ngir yàlla nga dimbali bu faatoo nañ ko suul dendale ko ñaari soppeem yam doon àndal yu ñuy Allahu akbar undur ila Aïcha wal iitaar wal iitaar bëgg naa ko lool xam nga ne Aïcha bu sañoon ñu denc ko fa denc yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dara gën di ñëw loolu seet na ko lool ay yamoo yi tam ay seen dëng ba mu yàgg mu ne ah man de li ma doon yéene mooy ma bàyyi ci palaas parce que ñetti palaas dong la moo tax suñu fa ali ak keneen ak keneen palaas bu baax ñett ñoom rek fa comme Abubakar dugg na muy sama baay yeneen bi dugg na muy sama borom kër maa ngi doon espère di sàq sàqal ko bokk bokkal roq si seen ngir suma faatu woon ñu denc ma waaye nag comme njëkk na maa faatu demal ne ko may naa ko ci xol bu sedd guy allahu akbar mbokk yi boobu Amar ibn Xattaab mi ngi ci sukuraat ba jam-jam biñ ko jamoon soow min naanoon ma ngay génn ca jam-jam ba loolu mandarga mu lay wan ni moom dee rek jam-jam boo xam ne soow mi nga naan ma ngay génn ci jam-jam ba booba bala saxaaba yi dina xam ne kii dee dee loolu bu amee rek faw nga dee Amar ibn Xattaab bi mu dikkee fekk ñu ngi tëdd ba mën a yëngal bopp bi di fi daal daal ñoo xam ne rek dafa yëkkati bopp bi dafa mel ni ku tiit gis nga ku tiit loolu tëddee woon sax di nga ko naan yëkkati bopp bi lu xew lu xew mu ne ko bégal te nga xam ne Aïcha may na la la nga doon ñaan mu ne alhamdulilah rabbil alamin amul ay minute mu faat kon noppi ñii lañ meloon ci di gën a rëdd seen biir ñii lañ meloon ci ragal yàlla waaye ñii lañ meloon ci am orma xataa bu dee kilifa bi Omar tamit daan génn benn décret fii ñu ko ni maay amir mu su ma nee nañ ma suul fee force te dinañ ko def ndax bu ko waxee bàyyi na ñoo xam ne dinañ ko defal waaye nag wala ci nee sukk du tax a yóbbu day óom sukkal nit mën ko ndax sukkal ko loolu day tax nga ñàkk day óom wala óom yi dina daal déet lu mel ne xorom ku ko am rek jox ko néeg bi nekk Aïcha la borom këram lañ fa suul ah ah ah moo ci am sañ-sañ ndax ba yonent bi moom la ko defaloon loolu nekk nekk amirul muminin kat sa kër nga moom waaye mu ñëw ñii la saxaaba yi dund te wallahi lii duñ ko dund dund bu dal la ñuy am dund bu neex la ñuy am waaye dund koo xam ne la yàlla fa anzala sakinata alayhi wa asabahum fathan qariba ñu ngi ñaan suñu borom borom ñu defal tawfiq هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين.